day ñëw ay dossiers yoo xam ne itam day opposé Ousmane Sonko mais quand même bref il est l'avocat justement de Mamour Diallo Euh, suite ak dossier bi nga xam ne itam ko devant le pôle judiciaire financier de le procureur d'après maître Recheba, l'avocat Ousmane Sonko que ni affaire yi mi ngi table mais maître dafa jéem weddi maître nee na euh, ki nga xam que moo Mamour Diallo saisiru ko te Mamour Diallo amul benn information que ni yëf yi mi ngi si kaw li nga xam ne table procureur

bu fekkee yow avocat Mamour Diallo dafa weddi nañu dem ba ci kanam luy ñëw jarul nga koy wutal kii nga koy wutal nga koy nga koy wutal tur moom mu ngi ñëw ci yow. du dafa ne Mamour Diallo kenn convoqué ko wala kenn signalé wu ko d'accord. mais yow yii bu ñuy taxawee ne la deux cent quatre-vingt-quatorze milliards yi dañ ko teg ci table procureur financier bi nga weddi loolu en tant que avocat de Mamour jàll mën ngaa nax sa bopp mais mënoo nax yoon mënoo nax justice sénégalaise mënoo yow mën ngaa nax sa bopp ak sa client nga rassurer ko wala mën ngaa manipuler certains. Ah oui non dafay rassurer maître El Hadji Diouf dafay rassurer Mamour Diallo. dafay rassurer Mamour Diallo peut-être Mamour Diallo mën a dalal helam ne ko non non ñuy ay wax la sa dossier nekkul ci table procureur financier bi maintenant dañuy xaar ba ci kanam du dañu ne réduction des comptes bi déclencheur na léegi jarul jarul jarul weerante. jarul weerante. Euh, benn commission tijji woon nañu procès à l'Assemblée nationale sur l'affaire des 94 milliards mais si une rôle cette commission a blanchi qui n'a xam que moo di Mamour non non non ah, non non attends. par conséquent qui n'a xam ne que moo di Mamour ëlbatiku porte plainte contre ki nga xam ne moo di Ousmane oui et après. maître la Hadj Diouf jàpp na ni si plainte boobu nag leen war a exactement vu que euh, cette commission d'enquête parlementaire leeral déjà l'affaire affaire des. quatre léegi xam fallo fàllu léegi fàllu dama lay ko maître loolu la wax. Mm. dama lay poser benn question bu simple. Mm que la commission bu installée installé assemblée nationale moo blanchi Mamour Diallo. oui ah, d'accord. d'accord après ñu ne Mamour Diallo la plainte contre Ousmane Sonko. est-ce que oui légui, après plainte bi fan la jëm. plainte bi nous le la jamono boobu de moo comme procureur Serigne Bassirou gay n'est-ce pas hmm. Macky Sall nommé ay procureur un procureur nommé ay juge am la majorité assemblée nationale bu ko voté la commission boobu.

c'est Ousmane Sonko qui a eu raison sur Mamour Mamour Diallo même une bonne partie de la famille Moi que c'est Osman terrain ils ont dit que c'est Ousmane Sonko qui a raison la famille ça chaque jour ni ni ni ni, ni ay point de presse. c'est évident. mais c'est ça c'est dama ne. sama dama milliards pour mu mu mon sénégalais hmm. on a installé une pôle judiciaire financière composé de 27 maïsera de 27 magistrats ñoo fa donc jeex na bu ñu bëggee tey yëf yi leer nañu yobu dossier bobu ci ci kanam ci kanam procureur financier bi les deux parties ñu mal man lago mais gëm mais concernant maître elle a lu mu doon wax ni que commission installée on a ko ci assemblée on sait c'était passé c'était commission bobo commission caaxaan la la parce que parce que vous commission bob ligue en na jamono bii dossier bob attee nañu ko ba bàyyi Ousmane Sonko am Mamour Diallo dossier bi moi dama la commission la commission caaxaan la li ma bu fekkee commission bi commission bu dëggu la jamono bii nii attee nañu dossier 94 milliards ba Sénégalais yi xam fu bi mais ñoom ñoo yoroon majorité di ñoom ñoo justice yow tu peux pas me dire que xamoon justice bi nu mu doon commission ne pas. non du commission la commission dong la c'est-à-dire que c'est pour étouffer ce dossier là moo tax créer cette commission là ma wax la pour nga comprendre c'était pour étouffer le dossier des 94 milliards. yo déggoo nga fii ay nit yi ne nan ku xam dara ci dossier boobu nga dem ci Serigne Bassirou Gueye déposer sa sa sa sa témoignage déggoo yooyu. Hmm. fan la mujjee fan la mujjee c'est un moyen bu ñu bu ñu bu installé pour étouffer le dossier des 94 milliards te Macky Sall moo ñu étouffer le dossier là parce que xamoon que bu ñu Mamour Diallo Moïdano. daanu Mamour Diallo c'était un protégé de Macky Sall Macky Sall ay boyom lañu ay lañu c'est c'est c'est ses enfants direct que ça soit Mamour Diallo Mambaïn, Mbaye tout ça c'était des protégés de Macky Sall ñu kenn du leen laal Mamour comment le maire de Saint-Louis Mansour Faye c'est c'est des protégés de Macky Sall jamono boobu munoo porter plainte contre ñooñu ba plainte bi ñu ñu ñu ko jamais jamais au plus grand jamais au contraire boo leen porter plainte yooyu yaay mujjee daanu te Mamour Diallo xam na ko Mamour Diallo moo tax xeex na ak Ousmane Sonko ci dossier Adji Sarr bi def na lu neex lu mu mën pour Ousmane Sonko dem kaso ci dossier Adji Sarr bi parce que dafa jàpp ni que Ousmane dem kaso mooy moom Mamour Diallo mooy liberté moom. parce que xam Ousmane Sonko du ma sa bàyyi le dossier des 94 milliards. mais c'est ça la réalité C'est ça la réalité te ñoom waa nee la wa Benno Bokk yaakar ñoo la gëna a xam ni que Ousmane Sonko mo am dëgg ci Mamour Diallo ci dossier 94 légui quatorze léegi nañ dem ba si kanam gis nga dossier bobu buñ ko instruire buñ ko joxé le le le procureur financier mm. sénégalais yi dinañu xam fan dëgg bi hmm. dina alors c'est euh, par rapport euh, dossier qui n'a xamné que modi euh, Diallo ak ki que donc hmm. mairie mi que le procureur hmm. financier bi exactement alors ñu